Dans leen ak jàmm internet yi ci sen du jour ñu tambalé ko ak point de presse bi ministère de la santé du ñu vendredi 3 avril 2020 jot na résultat examen virologique sur 153 tests nous ñu def fukk ak ñaar ñoo ci positif muy 7 cas importés muy ay doomu sénégalais yu sénégalais won ci pays africain yi ñu leen intercepté ci frontières yi té ñu mettre leen en quarantaine feulé ci Velingara ak juromika cas contact waaye nag am na onze patients yu daal di wër naka noonee ñu mën a jàpp tey 207 cas la ñu déclaré positif juróom benn ñoo ci wër kenn moo ci ñàkk bakkanam benn bu ñu évacué ak 139 yu nekk sous traitement. Qui donne boum boum docteur bi Amadou Samba ak complice inculpé pour huit délits Et Bapare, ñu len sous mandat de dépôt ngir association de malfaiteurs exercice illégal de la médecine usurpation de titres escroquerie portant sur les deniers publics faux et usage de faux dans un document administratif faux et usage de faux en écriture privée et complicité contrefaçon de sceau d'une autorité quelconque et usage des sceaux contrefaits lii yépp nag ginnaaw ak janowam ak le procureur démb tiis ak ndakaar la waa Ndar yeewoo tey nag xibaar bu nakare muy génnum àdduna kii di Alioune Badara di Golbert Diagne ci guddi jeudi jàpp vendredi xibaar bi nag TFM moo ko fësal acteur Ndar-Ndar bi nag dafa faatu ginnaaw ab malaise bu ñu sukkandikoo ba tey ci reporter TFM bi ci noonu lañu ko daal yóbbu urgence ca l'hôpital si guddi wu jeudi jàpp aljuma di fàttali lu yëngu ci réseaux sociaux fësaloon nañu génnub àdduna waaye moom ci boppam génnoon na daldi di weddi lu ni mel di ko ñaanal yàlla yërëm ko te xare ko arjana xibaari bitim réew wax ci coronavirus bi di lëmbee réewum états foofu nag fu ñuy denc néew yi sax problème la ndax ëppal nañu ñaari téeméeri junni nit ñu amee jàngoro Covid te juróomi junni ci ñoom daal ci ñàkk seeni bakkan mu nekk lu doy waar. ca France moom jafe-jafe dëgg ndax lu toll ci ñeent junni ak juróomi téeméeri doomu aadama ñoo ñàkk seen bakkan ci diiru weer ca l'hôpital ya ñoom nag daa mel ni lu dal réewum états moo leen dal ndax jafe-jafe lañu am ngir denc seeni néew. di leen jaajëfal mbokum internet yi jox leen dig daje ci beneen numéro actu de la journée.